الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله مقلب الأعوام عام بعد عام والشهور بعد الشهور والأيام بعد الأيام يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والصلاة والسلام على الهادي البشير والسراج المنير وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين amma baad mbokk yi nii déglu ñu ginnaaw bi ñu santee buur bi tabaraka wa taala julli ci suñu sang muhammad alayhi salaatu wasalaam seen mbokk seen xarit seen soppe Seyda Hafsa Lo moo leen di nuyu bu baax di leen ziyaar di ñaan buur bi tabaraka wa taala yàlla nañu nangul nangul leen suñuy jaamu yàlla yu ñu def ci weeru tedd wi di weeru koor ginnaaw loolu mbokk yi ñu ñëwaat ak yéen suñu waxtaan maa soo imaat suñu dars bi paase wala suñu waxtaan bi paase ñu doon dénk suñu bopp doon la ko dénk yow suñu mbokkum jigéen ne bu ñu def bis yi ñuy woor ak bis yi ñuy woorut mu yem bu ñu yamale bis yi ñuy woor ak bis yi ñu woorut nañu fexe ba bis yi ñu woor mu am différence bu baax a baax ak bis bis yi ñu woorul ci def lu baax ak wax ko ak moytandiku wax lu dul dëgg ak jëw ak rambaaj ak yu ni mel waaye tamit dénkoon nañ suñu bopp dénk leen nañu moytandiku li nga xamante ne bii moom mooy toog ci télé bi di ci sànq suñuy waxtu yu baree baree bari rawatina ci heure yi nga xamante ne bii moom mooy heure ndog heure dog mu nekk waxtu boo xamante ne bii buur bi tabaaraka wa taala daf ciy nangu ñaan ñu bañ koo kon perte ci ay film yoo xamante ne bii wala ay série yoo xamante ne bii duñu amal benn importance waaye mun nañoo sax julal bàkkaar wala mu wàññi suñu tuyaabay koor tey incha allah li ñuy dénk suñu bopp di la ko dénk yow sama mbokk mu jigéen mu jullit mi mooy nga moytandiku jikko ju jikkowoo jikko yu bon jamono bi nga xamante ne bii dangaa woore surtout mer ndax da nga gis ñun ñu bari ci jigéen ñi bu ñu wooree dañuy gaaw a mer te mer boobu daf leen di yóbbee ba ñuy saaga surtout suñu doom yi ndax des fois ni ngay nekkee ci kër gi liggéey bi njett la nga sonn liggéey bi wër la xale yi mun xale bi mun naa jóge fee def dara wala mu ñëw yuuxu wala dara rek nga yuuxu ci kawam gëdd ko xas ko saaga ko ndax mer boo xamante ne bii mer nga ko ndaxte yow dangaa xiif ñu bari ci ñoom ñu bari ci ñun jigéen ñi wala sax ñu ma ci góor ñi waaye ñu bari ci doomu aadama yi laa bu ñu bu ñu bu ñu xiifee wala bu ñu wooree dañuy gaaw a mer non seulement dañuy gaaw a mer waaye ci seen mer googu dina leen pousser ba ñuy wax loo xamante ne bii ay kàddu yu ñaaw la ndax topp seen mer te loolu baaxul mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ñoo moytandikuloo bu ñu wooree ñuy wax naka sudul noonu wala ñuy xuloo ka ñàññiwante yonent bi xamal la ne sax bu fekkente ne bii am na koo xamante ne bii sax mi ngi lay xëcc ci histoire fekk yow dangaa woor ne ko inni saim inni saim man dama woor man dama woor na loolu dekk say tontu ak moom waaye bul ko fekk si mukk ci wax ju ñaaw jum lay wax wala xuloo boo xamante ne bii daf la ciy woo kon loolu ñu moytandiku ko bu baax a baax a baax surtout suñu digganteeg suñu doom yi surtout suñu digganteeg suñu doom yi ndax léeg-léeg nga gis jigéen joo xamante ne bii mer na mer boo xamante ne bii wala sonn na sonn boo xamante ne bii ci weeru koor bi ak liggéey bu metti bi ba da ngay gis ne sax yenn saa yi day ñaan yàlla doomam boo xamante ne bii def na lu ko merloo te loolu dañ ko war a moytandiku ci jamono bu ne rawatina ak jamono bi ñu wooree ñaan yàlla say doom ay yàlla na ngeen deew ak boo xulmalee nag yàlla na ngeen nangam ak di leen ñaan yàlla yu bon loolu jigéen ñëpp war nañ kaa moytandiku ci jamono ju nekk rawatina ak jamono ju ñu wooree parce que ku woor sa say ñaan day gaaw a nangu kon nga ñaan say doom loo xamante ne bii baaxul mu tàbbi ci seen kaw ah bu ëllëgee si biir nga ngay réccu wala amaana sax bu dee jigéen joo xamante ne bii gëm yàllaam dafa xaw a des bu daan dañ koo liggéey ak dañ koo léeg dañ koo laa fekk yow yaa ko ñaanoon yàlla kon loolu mbokk yi nañ koy bàyyi xel bu baax a baax suñu doom yi bu ñu tàngalee suñu xol yi au lieu ñu di leen ñaan yàlla mais nañ leen ñaanal yàlla au lieu ñu di leen ñaan yàlla waaye nañ leen ñaanal yàlla parce que am na loo xamante ne bii xale moo koy def te xale boobu yow waajuram yaa ko war a teg te rawatina yow mi nga xamante ne bii yow yaay yaayam ëllëg si biir su baaxee xëy na dinañ joxoñ ñu baree bari waaye su bonee yow la ñuy joxoñ kon fexeel nga di ko ñaanal mu doon doom ji gën ci doom yi fexeel nga di ko ñaanal mu réussir fexeel nga di ko ñaanal mu doon ku baax fexeel nga di ko ñaanal mu doon ku jullite waaye bul ko di ñaan yàlla loolu kon ñu di ko bàyyi xel bu baax a baax a baax beneen bi biñ leen indi laa tey di ko dénk suñu bopp di leen ko dénk mooy ixlaasu niya li wajhillah ñu sellal suñu yéene yi ngir yàlla yéene yi nag suñu ko waxee xëy na nekkul ne rek yéene weeru koor bi moom moo tax ñuy wax ndax xam naa ne moom ab jullit bu ne boo déggee ne weer wi feeñ na di nga yéene koor di nga jug fajar xëdd booy xëdd di nga yéene woor bis bi nga war a bis bi nga war a xëy woor kon yéene boobu donte dañ leen ciy ñaax waaye taxul sax ñuy wax yéene bi ñu tax a wax mooy yéene yéene bu rafet def ngir yàlla ci jamono yi nga xamante ne bii surtout ñu ngi préparé ndogu ñu koy def te yàlla rek tax ngir bëgg cee am payu buur bi tabaraka wa taala donte suñuy doom la ñuy defaral ndogu bi donte suñuy boroom kër la ñuy defaral ndogu bi ndogu boobu nañu ko def ak yéene bu sell te yàlla rek tax ndax lan ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne innama al amalu binniyaati wa innama li kulli imri'in ma nawa jëf yi dafa aju ci yéene yi te doomu aadama bu nekk li nga jëf la nga yéene rek nga ci am kon bi ngay defar ndogu nga def ko te yàlla rek tax nga def ci nga def ko tamit nga yéene ci tamit dogal koo xamante ne bii dafa woor loolu kon tuyaaba bu mag a mag a mag nga ciy am ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne képp ku dogal ku woor dina am comme tuyaaba yi kooku am kon ki woor soo ba ngoon jot nga dogal ko tuyaaba yi ko yàlla bindal ci kooram googu yow tamit yàlla dina la ko bindal te it gis nga da nga koy boole kon say tuyaabay koor kon nga ci benn bés nga am ci ñaari tuyaabay koor ci benn bés muy koor gi nga woor gi nga woor yow ak dogal gi nga dogal ki nga xamante ne bi dafa woor donte sa borom kër la donte sa doom la wala sa yaay la kon ndogu bi nga xamante ne bi yaa ngi koy préparer sa waa kër yi woor na nga ko def ak yéene bu rafet na nga ko def te yàlla rek tax na nga ko def ak xol bu ubbeeku te nga def ko tamit yéene ci dogal ki nga xamante ne bi dafa wóor ndax weer wi amul dara loo xamante ne bi war nañ ko cee sàgganee lu ñuy may ay tuyaaba lu dul ne dañ kaa war a njëkkante dañ cee war a profito beneen bu mujj bi ñuy dénk suñu bopp di leen ko dénk tey incha allah moom mooy ñuy fexe ci biir waañ boobu ñuy toggee gannaaw ba ñu seelalee yéene togg ga ba noppi def ko ngir yàlla rek biir waañ woowu nañ fay ut àndandoo nañ fay ut àndandoo boo xamante ne bii moo ñu fay wéttali ci jaamu yàlla moo ñu fay wéttali ngir yokk suñu tuyaaba àndandoo boobu nag mën na nekk rajo mën na nekk sa portable surtout jamono yi nga xamante ne bii macha allah portable yi dafa tasaaroo te daanikaam léegi lépp lu nit ñi sax di daan def ci rajo yi daanaka am léegi seen portable ndax sa portable boo xoolee am na rajo te yàlla def na ñun fii ci suñu dëkk Sénégal am nañ chaîne boo xamante ne bii spécial alquran rek lay teg kon taalal chaîne boobu di ci déglu alquran wala sa carte mémoire nga def ci alquran kaamil bi nga xamante ne boo nekkee ci waañ bi danga koy taal nga di ko dégluwaale tabaraka wa taala di la bindal tuyaaba wala nga def ci ay waxtaan yoo xamante ne bii daf lay jëriñ ci la yokk ci sa diine nga di ko déglu ngir buur bi tabarak wa taala yokkal la ci say tuyaabay koor bu ñu niilal waxtu yi nga xamante ne bii dañ koy am ci waañ bi bu ñu ne rek lii heure la boo xamante ne bii maa ngi koy nekk ci waañ bi te li may def maa ngi koy def ngir yàlla tax dëgg la loolu jaamu yàlla la parce que yaa ngi ko def te yàlla tax jaamu yàlla la waaye nag pour nga gën a yokk say tuyaaba comme dañu ne dañoo nekk ci weeru promotion kon donc dañoo war a gën a yokk suñuy tuyaaba kon bu ñu nekkee foofu ci waañ bi mbokk yi di defar li nga xamante ne bii moom mooy ndogu yi nañu fa taalaale suñuy portable di ci déglu loo xamante ne bii daf ñuy indil njëriñ daf ñuy jural daf ñuy daf ñuy jural ay tuyaaba yu baree bari day yokk suñuy tuyaaba ci weeru koor bi wa illa su fekkente ne bii loolu mënta nekk ñu def li nga xamante ne bii moom mooy azkar comme niñ ko waxee woon suñu dars bi passé di wax ay la hawla wala quwata illa billah subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim subhanallahi alazim alladi la ilaha illa huwa astaghfirullah alazim alladi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayhi ak yeneen ak yeneen ci ay azkar ñu di ci góorgóorlu jamono yi nga xamante ne bii dañoo nekk di def suñuy liggéeyu kër moo xam ci waañ bi la moo xam dañoo nekk di fóot moo xam lu ñu mën di def ci weeru koor loo xamante ne bii liggéey la bu ñuy def kon nañ fa wéttalikook loo xamante ne bii daf ñuy yokk suñuy tuyaaba ginnaaw bañ sellalee yéene ci liggéey boobu nga xamante ne bii moom la ñuy def kon tey incha allah lii lañ leen indiloon lu ci jub ñoo xam ne ci buur bi tabaraka wa taala la lu ci jubadi ñu di ko jéggalu buur bi tabarak wa taala ñu xam ne ci mata matadik doomu aadama la ko jéggalu buur bi tabarak wa taala di ñaan buur bi tabarak wa taala yàlla nañu nangul nangu leen yéen ñëpp suñuy julleeg suñuy koor ak suñuy naafila ak bépp lu lépp lu baax loo xamante ne bii def nañ ko wala ñu wax ko ci weeru màgg wi ginnaaw loolu mbokk yi ñu ñëw ci laaj yi nga xamante ne bii jot nañ ko tey mu nekkoon ñaari laaj benn laaj bi soxna si di laaj ne ba xam dagan na ci koo xamante ne bi dafay wóor jigéen muy jël ay doom yoo xamante ne bi ay garab yoo xamante ne bi dafay tax du gis mbaaxam ci weeru koor wi ngir mu mën a wóor weer wi yépp wañ cee amee benn bor waaw kooku loolu dara nekku ci mbokk boobu dañ koy wax ne jël ay garab yoo xamante ne bi daf lay teree gis mbaax ci weeru koor bi dara nekku ci waaye nag bu fekkente ne bii daf koo def daf koo def ngir mën a gën a taxawee weer wi ngir mën a cee gën a am temps pour jaamu yàlla ngir bañ nawaa traweex yeeg maanaam naafila yi ñuy def guddee géeg wala xiyaamu layli yi di ko raw ngir bëgg a takku jaamu ci yàlla loolu bu boobaa moom dañuy wax ne amul benn amul dara lu ci nekk surtout rawatina bu fekkente ne bii nag doom yooyu nekkut loo xamante ne bii da koy lor waaye bu fekkee dafa nekk loo xamante ne bii da koy lor li gën moom mooy mu bàyyi ko parce que doomu aadama bi waloo def loo xamante ne bii daf lay lor wala tulqu bi ay diikum ila tahluka doom yooyu muy jël bu ko leeree ne loraange nekku ci te mu bëgg taxawee weeru koor bi gën cee góorgóorlu ci jaamu yàlla dara nekku ci waaye su fekkente ne bii daf koy def nii rek pour taayee la fay ay weeru koor ak ay kii na xam ne loolu kon li gën moom mooy mu bañ koo def mu bañ a jël doom yooyu su fekkee daf koy def rek ngir taayee la fay koor ngir bañ a am boru koor rek moo tax muy jël doom yooyu li gën mooy mu bañ koo jël te xam ne ñun li ñuy empêché ba di ñu tere koor ba di ñu ko fayloo loolu lu ñu yàlla bindaaleel la mu nekk dogal yàlla boo xamante ne bi yàlla moo ko dogal ci ñun jigéen ñu war ko koo nangul nangu gu nangu gu ànd gu ànd gudul ànd ak benn benn coono daal wala gudul ànd ak benn benn benn benn jàmbat kon daal mbokk boobu loolu lañ koy tontu ci question boobu bu dee daf koy def te amul benn loraange baax na kañ lay gën a baax nag bu fekkente ne bii daf koy def ngir gën a mën a takku jaamu yàlla waaye su fekkee ngir bañi boor kese moo koy tax a def li gën mooy mu bañ koo def. ñaareelu question bi kii dafa ne moom dafa am boroom kër waaye dafa nekkoon seen kër kër maanaam kër papaam ba ba mu am doom. léegi bi mu amee doom mu ñëw mu mu nekk mu ñëw kër gorom bi mu amee doom mu sëy si ci kër borom këram ànd ak doomam boobu nga xamante ne bii doom bu ndaw la waaye ci biir kër googu ay gorom ak ay njëkkeem dañ koy wax ne ko bu mu bàyyi xale bi noonu kese moom kese mu tëdd su ko dee bàyyi noonu kese ci néeg bi mu tëdd naka naka naka njeganal paaka wala wala brin almet ci ci suufu bopp bi te moom kër papaam ak kër yaay moom xamu fa woon xamu fa woon yooyu ñoom xamuñu loolu te kii mooy taawam te xamut nag loolu ba xam moom islaam lu mu ci wax mbokk boobu liñ koy tont rek mooy loolu nekkut loo xamante ne bii dafa dagan ci islaam daganul ci islaam ngay jegenal sa doom ay paaka wala ay brin almet ak wala ay téereeg wala ay naam ak naam loolu yépp daganul sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam lim ñu jàngal ci suñu doom yi mooy ñu du leen defal seen muslaa bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam daan defal al xuseyn ak al xasan muy uiiduka bi kalimaatillahi tammaati min charri ma xalaq uiiduka bi kalimaatillahi tammaati min charri ma xalaq loolu mooy muslaay bi nga xamante ne bii waajur bi war na koo mokkal jigéen ju nekk surtout war na koo mokkal di ko ñaanal ay doomam waaye ay teg paakaak ay teg jaaseek teg almetak teg bantu baleek loolu yépp nekkut loo xamante ne bii dafa wér te daf ñu yóbbu ci bokkaale parce que dafay dugg ci xeetu man allaqa tamimatan faqad ashraka képp kuy takk gàllaaj bokkaale nga te loolu nit ñi dañ koy def ak ngir ay gàllaaj ak ngir ay muslaay buur bi tabaraka wa taala ku musalul dara munulaa musal paaka munulaa musal jaasi munulaa musal brin almet munulaa musal leneen ak leneen munulaa musal buur bi tabaraka wa taala rek moom moo mën a musalaate kon suñu doom yi nañ leen di jàngal ñaan bi ak di leen jàngal ixlaas ak falaxeeg naasi bu ñu xëyee ak bu jant bi di sox ñu leen koy tiflil ak ayatul kursi te ñu bàyyi yeneen yi nga xamante ne bii dañ la koy takkaloo ay lam bu ñuul ak ay téere xawma ay ay ay ay paakaak ay brin almet ak loolu yépp nekkul loo xamante ne bii islam daf ko santaane kon ñu bàyyi ko xel bu baax a baax inchaa allah aqulu ma tasmaun wa astaghfirullah li wa lakum wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh